yéenekaay yi ànd ceeg Pape Malick Thiam Pape Malick ban yéenekaay la ñuy tàmbalee tey. je dirais comme ni ñu ko defee woon ci français bi dañ koy tàmbalee ci yéenekaay lu si gën a fës. Sud Quotidien Sud Quotidien muy wax Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président muy ñëwaat ci lu nga xamante ni moom moo di mbay mi euh, ndaxte Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na euh, moom li mu bëgg moom moo di mandat wu cinq ans bi euh, Sénégal am ci souveraineté alimentaire bu baax a baax ndaxte lu ñuy renforcer mooy investissement yi jox baykat yi li nga xamante ni moom moo di ay jumtukaay bu ko defee ñoom ñu am doole ba nga xamante ni lu ñuy bay ñu mën ko dundee ñu dem ci lu nga xamante ni moom moo di beneen quotidien di le soleil le soleil ñëwaat ci euh, Popenguine ñu ci wax wàllu jàmm ak yoon l'appel monseigneur Benjamin Ndiaye euh, nemmeeku nañ ko fa euh, li nga xamante ni moo di messe Pentecôte bi monseigneur André yi moom tamit wax na ci société Sénégal nu mu tëddee wax rek nan lañu mën a def ngir Sénégalais yi ñu nekk ci jàmm jubal tamit wax nañ tamit ci sanctuaire bi nga xamante ne président Macky Sall moo ko defoon daaw ñu war koo eggalee liggéey bi wax tamit ci marche bi nga xamante ne mooy ndaw yi def nañ ko foofu ci Popenguine Walf Quotidien ñëw ci Bassirou Diomaye fay lu mu xaatima euh, nommé ay officiers supérieurs ci différents ministères yi euh, mu nekk ay euh, ñoo xam ne ay tàkk der la ñu ne militarisation du projet projet bi di def allusion ñu ngi li nga xamante ne moo di waa PASTEF mu ngi ñëwaat tamit journal bi ci njëkk yi nga xamante ni dafa yokk bu baax a baax loolu Walf Quotidien ñëwaat na ci l'info quotidien ñëw ci dundu bu cher gi tamit yoon politique wante lu mu gën a fësal moom mooy monseigneur Benjamin Ndiaye lu mu wax ci Popenguine mu ne Sénégal jàmm la ñu ko xamee jàmm moom la ñu war a jubal àdduna bi yëpp naw nañ ñu ci loolu donc nañu ko wéyal euh, di rafetlu Bassirou Diomaye Faye tabb gi ñu ko tabb ci boppu réew mi mu leer nañ ñi amuñu euh, werante wante journal bi euh, ci wet gi mu ngi wax Jean-Luc Mélenchon ñëw gi mu ñëw ci Sénégal moom mi di jiite opposant moom bi di opposant euh, français di wax ne euh, li mu li mu wax moom amul euh, gisu ci benn jafe-jafe ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñi nga xamante ni ñoo di source ñëwaat ci benn xuloo xuloo bu am ci direction générale bu budget loo bi nag euh, ñi ko seq moom mooy directeur euh, contrôle interne ak ki nga xamante ni euh, moo di adjoint ma ñoom ñaar ku nekk yaa ngi werante kii naan ko yow Sonko nga faral keneen kii di wax ne yow yi nga àndal journal bi mu ngi fësal tamit prêtre yi nga xamante ni dañuy wax ci pasar pasare suuf Euh, gi nga xamante ni dañu ko nemmeeku fii yëpp ci Sénégal enquête ñëwaat ci magistrature bu Sénégal nee ñu dàq ñu euh, fan yi di ñëw ñu càmbar euh, li nga xamante ni moo di magistrature bu Sénégal ndaxte Abdou Karim Diop ak Ibrahima Bakhoum ñoom dañuy waaj a dem kan mooy remplacer Siré si Ali Siré Ali Siré Ba Euh, mu nekk ci cour suprême ñuy wax ne journal bi bu ñu sukkandikoo ci juge euh, Ngor Diop ñoom euh, seen xel war na mën a dal journal Le Quotidien ñëwaat ci Ousmane Sonko le premier ministre Ousmane Sonko di wax ne ay immeuble yoo xamante ne état Sénégal moo ko moomoon war ko jox ñi nga xamante ne ñoo di ministre yu bees yi loolu am na jafe-jafe Ousmane Sonko nag interpellé nañ ko ci bu baax a baax journal bi ñëwaat ci jàpp gi ñu jàpp activiste bi baajaxate di teg ko témoin euh, ñëwaat ci euh, Sonko ak li mu dikk ñi nga xamante ni ñooy jàngalekat yi ñu ne ndax dañuy dem ci euh, càmbaraat système éducatif bi ñuy wax ni syndicalistes yi ñoom taxaw nañu temb fukk ak juróom-ñeent ay mesures dogal yoo xam ne premier ministre Ousmane Sonko jël na ko critique le journal ñëwaat ci li xew Popenguine Bassirou Diomaye fay moom ñi nga xamante ni ñoo war la bay kontaan nañu torop ci moom nee nañ ndax moom ku yaru la am na humilité ba noppi dina déglu loolu euh, journal critique moom moo ci ñëwaat bés bi le jour xaaj euh, euh, xëtam wu njëkk ñaar benn bi mu ciy wax monseigneur André Guèye Euh, nu mu taxawee fële ci Popenguine euh, mu ne Sénégal yëpp dañu war a taxaw booloo nekk benn euh, dund ci jàmm di remercier tamit li nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Faye mu wax ni moom liggéey yi nga xam ne sumb nañ ko foofu dina ko eggale ci beneen fànn bi ñu ngi ciy wax jàpp gi ñu jàpp activiste bi di Bajaxate journal bi tamit mu ngi fësal Jean-Luc Mélenchon di andi ay tontu ci lu mu wax discours bu mu def Université Cheikh Anta Diop mu ni moom xaarul woon sax loolu mbir mi jur coow ci wàllu polygamie ak tamit ci wàllu Euh, droit LGBT yi les échos ñëwaat ci jàpp gi ñu jàpp ba jaxate euh, ñu ne dama am na benn imam boo xamante ne ñu ngi koy wër ma boobu ba léegi kenn gisu ko imam bi mu ngi tudd Cheikh Tidiane Ndao loolu les échos moom euh, moom moo ko bind di wax tamit Ousmane Sonko di wax ci wàllu fonction publique ak njàng mi ak jàngale mi di wax ne dañ ko war a soppi am na ay soppite yu bëri yoo xamante ni war nañ ko def ci weer yi di ñëw l'observateur ñëwaat ci diggante. Macky Sall ak Amadou Ba ci biir opposition bi ñu ne guerre des chefs la daanaka ku nekk mu ngi waajal sa boor loolu euh, journal euh, l'Observateur moom moo ci ñëwaat joxe déclaration Cheikh Oumar Anne ak Macky Sall lu mu wax euh, ñu ne ba ba léegi ki nga xamante ne moo di amadu Ba kenn dégg ko ci lenn bataayu kan moo war a jiite. Euh, APR loolu moom mooy coow li journal bi tamit di wax ne euh, di fësal nu ñu jàppee ki nga xamante ni moom mooy activiste bi di ba jaxate loolu observateur moom moo ci ñëwaat dañuy dem rek ci journal bi di indépendant euh, di wax ni Bassirou Diomaye fay mu ngi dalal xelu waa kër labbe yi ndaxte ginnaaw bu ñu ko falee ba léegi defagul sans faute yaru na te tey na donc te loolu lu ñu loolu lu ñu bëgg ci njiit libération ñëwaat ci Ah, benn opération bu ñuy opération coup point poing gendarmerie bu Ndayane euh, ñoom ñoo ko fësal cent trois cent vingt kilos euh, ci drogue euh, moom la ñu gis ci benn kër ñu ne drogue bi nag dañu ko nëbboon ci ay sac yoo xamante ne haricot lañ ci def benn français ak koo xamante ne benn algérien ñoom ñoo jiite mbir mi section de recherche bu Thiès ñoom ñoo leen teg loxo ñu ne police bu bu Thiès arrêté na. benn sergent boo xamante ni ci armée bi la bokk ak 5 kilos chanvre indien Euh, journal bi tamit mu ngi fësal jàpp gi ñu jàpp Bah ñu war ko defeere euh, di déglu ko tey jii euh, ci talaata bi ñu jeexalee ak quotidien sportif stade quotidien sportif stade di fësal record bilan gaynde yi ci saison bi muy def ci UNAM Nicolas Jackson ak Pape Matar Sarr ci Europe Gana Gueye ñu ne dafa benn record bu mu baat loolu mu ngi ci biir journal bi quotidien de stade Aïcha li moo gën a fës ci euh, xibaar yi maa ngi lay delloo kàddu bi jërëjëf Pa Malick euh, di la jaajëfal bu baax a baax waaye mbokk yi yéen itam di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Pa Malick ba tey dañuy des ak yow daal di yaatal xibaar yi euh, ci li nga xamante ni moo di actualité politique ak économie léegi léegi rek bu bàkk bi noppee mbokk yi ñu dikkat ci plateau bi. ay ci mu ngoog Pamali Thiam ñu àddu ci actualité